Thank <laughs> you.

ñi ngi koy souligner mu jëm ci ay danger yoo xamante ni benn défi la boo xamante ni tey dañ jànkaarloog moom jëm ci ay migrants yoo xamante ni dañuy entreprendre jël li nga xamante ni mooy benn voyage boo xamante ni pour uniquement risquer seen vie la maanaam dañu bëgg a dem xaruñu en tout cas mooy li ñuy wax rek Barsamba Barsax taayale meloon na tulleeg Mali mais benn jamono gisoon nañu mu xaw a wàññeeku doonte musul jeex mais dafa mel ni dafa reprendre ndaxte gaal bii nga xamante ni dafa jóge woon fii pour dem foofa ca Espagne dafa am benn chavirement boo xamante ni ñaar fukki nit ak ñeent aussi daal dinañ ci encore ñàkk seen bakkan mu doon li nga xamante ni daal mën nañ ko jàppee xalu ndaxte su dee ñàkk yaakaar moo tax ngeen jógee Sénégal pour dem bitim réew ndaxte foofu ngeen jëm amu leen fa yaakaar ndaxte amu leen fa mbokk amu leen fa ndey amu leen fa baay fii am ngeen fi ndey am ngeen fi baay am ngeen fi wéeruwaay donc je crois que yenn yi ay risque la. Thank you.